yàgg maar tey nag Eumeu Sène Lac fii la war a bëre le 4 avril te fii waxoon naa ko démb bëri na suuf géew bi yaatu na Lac de nag jot na fee jaar am na lu mu fi jëlee xam na fi Eumeu Sène moo fii ñëw wàcc bees Pape Aline ginnaaw bu ma la nuyu ziar la ñaanal la jàmm mu mel ni namante woon nañu ginnaaw bu ma la nuyoo daal Lac de Guiers 2 Eumeu Sène le 4 loo gis ak loo ciy wax Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu caméraman bi nga àndal di la ñaanal jàmm di la ndokkeel ci liggéey bu rafet bu yaatu bi nga xam ni yàng ngi ci di ci bay sa waar. wax nga ma combat bu doy waar combat bu solo ndax ñaari mbër yi ci war a daje xamante nañu waaye day ñaari mbër yoo xamante ni euh, combat yu mag yi ñoom ñoo ko war a ubbi ñu bëre ñaari yoon bi nekk ñetteel bi yoon ñu war a bëre muy combat boo xam ne su amul calcul rek dina war a mën a neex. lu tax ma la bu amul calcul Eumeu Sène dafa daan Lac de loolu boo xoolee Lac de ndax du andi calcul boobu ki nga xamante ni it euh, mooy Eumeu Sène sorte bu mujj mu nekk roi des arènes am défaite ndax du calculer waale loolu. combat la daal boo xam ne ñoom ñaar war nañu mën a bëre ndax ñaari mbër yu xamante lañu waaw. mais tey boo xoolee ñoom ñaari mbër yi bëri na ñaari yoon la ñun na match nul Eumeu benn bi yoon combat bi. est-ce que bu njëkk ba ni mu yàggee woon ak bu mujj bi ni mu jeexee yow loo xalaat ci jeexintalu combat bi. li ma xalaat ci jeexintalu combat bi warta mën a yàgg bëre woon nanu ama seen daan fekk njëkkoon nanu bëre jaxasoo bëre bu neex dama jàpp ni bi yoon ama seen li mu jóge dina war a ñëw indi lu mu bëggalee ay supporteram dina bëre si. Lac de Guiers numéro 2 nekk mbër moo xamante ni champion la ñu koy nangul mëninam moo ko may li mu am ci làmb. mais combat am yenn saa yi day rasu day xaar day bari calcul jàpp naa ni moom it combat bi li mu war a mën a indi sañ-sañ gu mat sëg xam li mu bëgg bët dem bëre wu ndam. dóor mu daanu côté xeex bi xalaat nga ko ci. waa dóor mu daanu mën na ci am boo xoolee waaye daal ñoom ñaar dañuy ñaari mbër yoo xam ni jàpp naa ni bu nu bëree moo war a gën a mën a neex ñu jaxasoo bëre daal laa gën a xaar ci ñoom kenn bëtt moroomam waaw. ñoom ñaar kan moo gën a pare ci côté bëre. côté bëre ñoom ñaar ñëpp bare nanu boo xoolee Eumeu bëre kat la am na fu mu jógee am na keppaar yu mu ne am na ci yoobu noo xam ni jaar na ci ki nga xam ni mooy Lac de Guiers 2 mbër la moo xamante ni boo xoolee dinay bëre waaye li ñuy bëre moo dul benn Eumeu day nekk mbër moo xam ni dalay nax wut buntu juyaloog yow bëre Lac de Guiers nekk mbër moo xam ni dalay xaar nga ñëw mu rasu mu jéem la nax foofu soog a bëre combat bi kon daal yow boo xoolee kon ñoom ñaari mbëri daal mais jàpp nga ne fii ñu war a bëree muy na sonal tamit loo leen fiy wax ñoom ñaar loo leen fi yebee li ma leen di yebee géew bi yemb na lépp pare na lëggaat bés bu rëy la Gaston yàgg tëgg tàkkusaan gu rëy ñoom it ñu yàgg am bés bu rëy ñu leen di xaar lëggaat nañ ñëw daal dëggal seen bopp kenn ku ci ne ci ñoom ñaar ñoo ma ko gën a xam sàmbal ma ci kaw te bàyyil ma xel ci suuf waaw bàyyil ma xel ci suuf kon làmb jaa ngi noonu bés bu rëy la tolloog ñaari mbër yi waaw ñu nit kontaan nañ ci yow Babacar di la jox sa cër ak sa wàccuwaay yàgg maar ama seen Lac de boo xoolee kii moo koy piloté ci organisation bi Laat Ndiaye waaye kii taxaw mbër la balaa may ñëw ci laat ci kii laay njëkke ndax mbër mu jigéen Sénégal ma wan leen ko ci Equivox maa ngi lay ziar. maa ngi lay dolli ziar sama waa ji. ma tur bi. aram de kata bombe. dëkk fan. dëkk Tëngéej. mais mbër mu jigéen nu mën a nekk mbër mu jigéen mën naa nekk kay sama doom laa andi woon mu bëri se sa yaayam ci ko nàmp maa yaayam Sénégal moo fi namp mbër waaw waa ji nakaan am na seen sama ndijaay la mu naka mu naka man mbër ma nampal loolu la ko waa ji wax ki muy bëral mais nag dama def recours ah parce que dafa daan waa ji ba pare ñu jox victoire bi waa ji parce que waa ji dafa jëkk a toog arbitre yi war nañu xoolaat li ñuy def ah. waa ji dafa toog image bi mu ngi nii waa ji dafa toog ba pare image baa ngi nii waa ji ba toog ba pare jógaat arbitre nañ xool li ñuy def bi na naa recourant ah suba naa ko déposé waroo toog jógaat man kii xam naa li ma ko sante toog na ñaari yoon na arbitre yi xool li ñuy def waay waaw dinaa déposé suba na recours loolu am na solo mais léegi xam nga fu may ñëw ak yow technique seen nga xam nga làmb ama sen Lac de ni numéro 2 ama seen na jënd ci euh, lii ataaya teg ci wetam lu tax nga wa ki mi beneen jànq kii la du bëre. yow Lac de moo la wax ne du bëre. ay damay dóor damay lii du bëre. Lac de du bëre. mais foo teg lii soxna si. waaw amat seen xeex kat la bëre kat waaye nag koo ku la ñaar lam mooy yëngatu ay benn lam du yëngu. mais est-ce que faroo yow. non man far lu ma kenn man su lebu mais Lac Lac Lac Lac daan na fi ay mbër ay mbër. Lac daan na fi mbër par erreur man faraluma kenn. dama xam ne du bëri rek chaque jour loolu la wax ba ñëwee du bëri na bëri waay suba nan dimbali ngir yàlla le 4 nan dimbali bu ñëwee mu bëri waay Lac de Guiers ñi ko faral sa day mer man faruma kenn mais na bëri waay nan neexal xel lamb da am ñoo xam ne dañuy ñëw ngir Lac kese nee nga gis rek paas am ñoo xam dañuy ñëw pour bàkku ñiy ñëw pour gumbe pour seetaan ñiy gumbe ay simba si ku ne li la andi si lamba ñiy ñëw pour ëmm seen na bëre waay na neexal bés bi waaye mu neex. ñoom ñaar ku dàq bëre. non ëmm seen am na vivacité de vivacité baax na si mbër. mais lag lak lak benn instant xaw na tey benn instant xaw na tey de. mais waxoo ma ku daq bëre ba tey de. mais ñoom ñaar ñoom mën nañ bëre ndax kii day xaar te kii day attaqué. kan moo avantage ci biir bëre bi. man ama laa gis nag ama laa gis lak moom moo war a bëre mais du bëre mais ama laa gis mu bëre. na bëre na bëre na ko jëli ji. na ko jëli lak du bëre du bëre waay. chaque jour fii gars yi ñëw xam nga du bëre na bëre waay na bëre waaw. côté xeex non côté xeex Eumeu laa si gën a wóolu tamit yow yow mii sax xam nga ne Eumeu xeexkat la waaw waaw yow xam nga ne Eumeu xeexkat la Lac de dina xeex mais boo ko si wóolu du la wuyu waaw Eumeu moo gën a kii xeex bi moo gën a man a encaisser. kon mën naa gaaw. mën naa gaaw mais man xalaatuma si gaaw ndax sama waay na bàyyi loolu waay estogan boobu na ko bàyyi waay dama bëgg mu ñëw bëri dama bëgg mu ñëw bëri waaw. mais yow bàyyi nga bëre bi léegi. bàyyiwuma utal ma kenn gis naa fi léegi benn xale bu jigéen bu boo bëggeen dem ma woo ko léegi. yow mi du ma mas a bàyyi man. sama caméraman bii du combat. aywa loolu du combat. yàgg maar mi. wala ngaa xam ne bàyyi ma bëre xaaral ba la kaat. ma ñëw safal. kee nee naa ko la kaat ma la gisee si bi naa la tënk te naa la daan. la saaru ñeexu nen yooyu la rek ah. mooy ñoo ñuy lekk darti darti gis naa fi ku naa ko de. na ko promoteur yëpp yëg soxlaa naa ko soxlaa naa na promoteur yëpp yëg loolu ki sol lu ñuul li sànq fii ki sol lu ñuul li soxlaa naa ko soxlaa naa ko na ñëw ma ñeexal ka ma ñeexal ba mu tooy xib. kon nan laat ngay wutal combat. laat nga mu ngi sama ménager. yaay ménager mu wutal ko combat. xam nga dafa am innovation bu WWR amoon yaa ngi doon seen jigéen ñoo ñu doon bëre dëkkoon bari ñi ñoom Nduuja bari woon na ñu andi leen mu safoon gaa yi lool. loolu nag bëgg nañ ko bisaat tey bu jëlee doomam andi ko mu bëre ak lébu war a jógee tënkeej bari ñi yaakaar naa ne ñii bu ñu ñëwee ci làmb war nañ si ñëw nag vraiment ñi ngi kontaan ci ñoom vraiment keroog bu ma leen gisee rek sama yaram day daw mais ñii daal vraiment ci làmb la ñu bokk Babacar. kon la kat da ngeen a fas yéene ñu bëri. waaw ba noo xaaral tout équipe bu jigéen bi day ñëw. waa da ñoom bëgg nañ B52 ñi ngi xool ci programme bi ñëw gi day ñëw format day ñëw te am nañ yeneen plan yu na am nañ yeneen plan yu moom gis nga lim lay wax nii même bu ñëwee jour làmb ja noonu lay def moom rigueur lay doxee mais daal la 4 avril kenn ku ne sa fête la ci la Sénégal moom boppam man muy wax ak yow am naa doom ju juddu 4 avril waaw maa la wax lii maa ngi koy sax profité di ko fêté vraiment di ko de joyeux anniversaire sama doom Fatou Kiné vraiment dina feete nag wax dëgg yàlla 4 ah, avril bii di ñëw nag yàlla dogal na ci lay feete 17 ans sama doom la maa ngi koy vraiment maa fii Fatou Kiné joyeux anniversaire. mais laat ama seen la de lan moo leen di tàqale. bëgg ak bañ xam nga lu ma ci neex dañu daan bëri ñu daan lal baas suuf di am tey arène nationale la ñu jëm loolu sa tànk xeeb ko. Babacar sama yaram sax day daw non fi ne nii. bi daa bëri gan. li ma ci neex. amul dama tarxiis amul bidon ndox bi. waaye tey Alioune Sarr. tey li mu def ci arène nationale bi. secret bi mu andi fii. waaye di ko ñaanal jàmm. président Bira Sène. bul fàtte bi mu jëlee CRG ak tey. tey mooy première. combat lutte frappe lamb ubbi waat na. tey yàlla dogal. muy première journée am. ñu koy ñaanal yàlla jàmm di ko baax. président Bira ku bëgg làmp ñu koy ñaanal daal mu daal jàmm. ubbi na buntu yëpp tëjalul kenn. na ñëpp ñëw ko am soxla demal seeti bira tëjalul buntu kenn lamb ñun ñëpp ko bokk ku ne am nga ci soxla ko am soxla seeti ko loolu la ko Matar Ba san lool la ko ministre des sports san te mi ngi ci te ñun ñi ànd moom xam ne ñu tëjul benn bunt ko am sa soxla boo ñëwee CNG fekk ko fi mu géré waaw ñu ngi jaal Gaston bàjjanam bi wàññeeku Louga Gaston ñu ngi koy jaal bàjjanam bi wàññeeku Louga yaay Pape Samba yaay ñu ngi koy jaal mère Dieye ñu ngi koy jaal waa ndax Gaston am na turandoo waxambaane sa kër ga sama kër papa Louga am na fa turandoo. Babacar bul fàtte combat yi am na. waaye Moodu Anta man ak Diène Kaïré. mani xam nga Moodu Anta ak Diène Kaïré daa am ñaari combat yi lu ci xew. Eumeu Sène bëreegul arène nationale moog Lac de Guiers fi bëri ak Boy ñaa combat booy set événement à part Boy la Lac de Guiers amaguñu combat bu toll noonu fii mais vraiment Gaston Mbengue ndaanaan la courage am dama ni ko gisee muy dem déggatoo stade bi xajuma fi déggoo mu ni Léopold déggoo mu ni fenn arène nationale fi la Balla Gaye numéro 2 jëm si ak Bombardier Pakala dana ñëw Forza sa la ñu am Moussa Ndoye vraiment ak Sa Thiès mais xoolal la technicien li may def Matar Ndiaye ndaanaa na ngi nii sama xarit <laughs> mais vraiment Babacar dana am ay surprise bari na luñ bëgg a def mais di la wax ni dañu pertoon 4 avril ci ay dates yu mag Gaston Mbengue andi si ko andi waat vraiment loo xam ne lu gëjoon ci làmp te bul fàtte Gaston Mbengue ren dafa ñëw lépp ay revanche da ko def Balla Gaye Bombardier revanche la déguére ma seen revanche Pakala Forza revanche et tant d'autres yi nga yëgagul maanaam ci li nga xamagum en attendant na ñu may gaay doo ma wax noo nga yëg non li ci non dañ ko bàyyi ba ci kanam ndax dañ problème bi mooy war nañ dem Kaolack pour décentraliser lamb ji fa la Pakala Forza jëm ah. ah kooku dëkku président du CRG la Bira Sène moo tax Gaston Mbengue yàgg na taxaw ku ne ci làmb bu nee bëreet président Bira Sène ñëw première sortie mu ni lax laa jëm parce que loolu lépp ci xeet rafetal la fa mu jëm du la ko wax waaye Babacar bu la kaatee nga xam ne donkin ñëw waaye nag di gërëm moo na mi et moo Modou Dieye seen waaye ki làmb ji taxawoon ci moom muy ki nga xam ne mooy Baba Yacine Thiam ñu ngi koy nuyu ak xale yëpp waaye Gibson staru promoteur yi Gibson production maa ngi koy nuyu